côté basket la moo def différence bi demb euh, mën naa ne attitude nigérienne parce que ñom du début à la fin dañu ñëw ak benn attitude nga xamante ne euh xawma ma nan la ko mën expliquer quoi elles étaient très confiantes dañu dañu dañu c'est ça c'était te loolu gis nañ ko ci sen façon de jouer ci sen façon de défendre daw xam nga la façon dont elles communiquaient et tout donc comprendre nga dañoo amoon hargne quoi am jàpp confiance et tout defe naa côté boobu loolu rek gagné nañu woon mentalement ci côté boobu. beaucoup xoolee match bi serré a na mais on a remonté c'est loolu suñu défense moo ñu ko moo ko permettre je pense que des match démb on était trop focus sur la défense que c'est attaque bi. so on a beaucoup défendu mais on n'a pas attaqué assez so loolu defe naa loolu bokk na ci li nga xamante ne coûté nañu match bi. fii mënuñu fi wax waxi échec parce que le fait que nga dem ba final rek pour man loolu rek c'est une victoire parce que équipe bi bëri woon mais le fait que mënu see battu xam nga ñàkkante ko ba final rek loolu donc instant yi man mënuma moo échec moom xaj euh, amu fi amu fi place so dañ koy sant yàlla bien vrai que on pas eu la réussite mais dañuy gën a defaru rek après xam nga gën a ñëwaat comme on dit rek y des jours sans xam nga nit ku tamit nekkul ne chaque jour rek comme sportif nekkul ne chaque jour ngay dox xëy na démb dafa nekk woon sama jour rek mais quand à quand il s'agit de pression moom j'avais pas la pression du tout donc so même moi je comprends pas bi ma dalee basket ba tey macha allah musuma basket match te dugaluma même pas un point démb c'était la première fois ma joué match Yacine dugalul sax un point benn lancement sax Yacine dugalul mais après loolu yëpp da nga ciy jàngat ay ay jàngat lay doon rek xam nga nga jël recul analyser waat xam nga amna yenn yo xamantene nak c'est inexplicable on tu n'as pas la réponse à ça mais bon that life goes on I mean. Et bi mom pour dire vrai waaw war nañ ko renouveler war na yi on a plus besoin de jeunes yu nga xamante ne taxaw physiquement gëna mëna mën a daw bien que les anciens yi fi nekk ils ont montré l'expérience hier elles ont, elles ont tout donné durant cette compétition, mais nous avons encore une Coupe d'Afrique dans 2 ans ou 4 ans. L'équipe doit renforcer avec les jeunes. Dem retraite, c'est une décision personnelle. Je ne peux pas laisser dire ni Mais de toute façon, une de mes retraites, bien sûr que nous manquer parce qu'elles ont, elles ont, marqué, elles ont marqué leur face dans l'équipe nationale. Donc, bien, nous finissons que les tamit, mais nous manquer quand même. Surtout nous, on a, on a qui jot nañ leen ko tuwaayee jot nañ jouer ak eux. so bien sûr que buñ fi jógee moom dinañu manqué Le ma nekk la bien vrai que ne nekku ne la nga xamante ne man dama koy yóotu wala dama koy mais bon si l'occasion aussi se présente ñu ne Yassine, Yacine tu tu vas tu dois être le leader de cette équipe je le ferai Inch'Allah. Il y a y aura aucun problème à ça Pour répondre à ta question par rapport à secret, je ne vois pas, il n'y a pas de secret. Moi, franchement, moi, ça,

xam nga ñu nar a ñibbee noonu xam nga ak ak la défaite loolu rek tooral na sama xol démb xam nga loolu rek jaroon na rayante ba dee rek pour indi leen coupe bi mais Dieu a décidé ainsi so on a décidé ainsi so mënuñu ci dara so sant yàlla rek.